الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الفائزين ورضي الله عن خليفة رسول الله على الإطلاق خطب المكتوم برزخ المحتوم خاتم المحمدي المحلوم سيدنا ومولانا أحمد تيجان ابن محمد ابن مختار رضي الله عنه وعن وارث سره سر رسول الله خليفة التيجاني على الإطلاق شيخ الإسلام سقي القوم حجاب الأعظم سيدنا ومولانا شيخ إبراهيم ابن علاج عبد الله نياس رضي الله عنه وارضاه وانا به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الشيخ يخدر لنا بهذا المحضر والتختفي بنظرة تأتي لنا بزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi جوليتي فوج مانتي نيك fu ñu mënti nekk mbokki téléspectateurs yi mbokki lecteurs yi ak mbokki di leen ñaanal yàlla ëwalan ci weeru bar barkeel bi nga xam ne mooy weeru gàmmu te ki tax ñu binduñu te su moom ñun duñu am mu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko xalaqtuka min ajli wa xalaqtu xalqan min ajlik bind naa la ngir man ma bind lépp ngir yow yonentu boobu sallallahu alayhi moom ci boppam wax na mu ne ana minallaahi wal muminina min ni man maa ngi jóge ci yàlla waaye jullit yépp ci man lañ jóge bàyyi mu ne dafa am teggin rek waaye lu dul jullit sax ci moom la jóge mu ne ana alqaasim wallahu moxti yàlla mooy joxe mais man yonent yàlla muhammad maay seddale kooku nag nga xam ne mooy suñ sang bésam mooy ñëw guddeem mooy ñëw mu di gàmmu may gu foor gu rëy gi gën a gi yàlla gënoon gënoon gën a rëyle moom la ñu may ci bés boobu muy yontu yàlla Muhammad moo tax bés boobu luñ ci fuuglu luñ ci yëngatu luñ ci dundali luñ ci sonn rek ba tey mot su fekkoon ne euh, cent effort lañu war a def ci gàmmo un effort bi sax motalaguñ ko ba léegi ndax xéewal gu day noonu mënuñu ko fay yaa ngi may laaj nan la ci Maulana Cheikh Ibrahim daan dundale moom weer wi suy waaj di ñëw amatul jàmm ñi ngi fàttaliku 1947 boobu def fi jóge ci weeru muharram demoon jëli alaaji Ousseynou suma baay ca Guinée waaye lim koy wër biir gine ak Sierra Leone ak Libéria yépp xol bi mu ngi aju rek Medina Baay ndax gàmm gi waaj a dikk mu ne amatul jàmm ndax xolam bi mi ngi aju Medina Baay Abdou Aziz nu mu ko waxee المدينة أرقب شهر الحبيب إذ أراه يقرب قلبي دوام الدين أرقب شهر الحبيب إذ أراه يقرب لمدينة أرقب شهر الحبيب إذ أراه يقرب mu ne xolam bi daay man rek mu aju ci Medina Baye xol baa ngi fees dell ak souveniru Medina Baye lu ndax mu ngi gis weeru yonant bi weeru soppeem bi muy gën di avancé di rapproché wu rek bés bu nekk bés wàññeeku ci semaine bu ne semaine wàññeeku ci waxtu bu ne waxtu wàññeeku ci minute bu ne minute wàññeeku ci seconde bu ne seconde wàññeeku ci bés bi di gën di jege rek ba tax na nelawatu tax guddi yonent bi noonu la ko jaraloon am na benn at mu rendi juróom-ñaar fukki nag 70 ba ci jamono boobu année 1952 la ko rendi gàmm gi paase mu dundalee ko gan yi teral leen lu ne mu def ko ba loolu paase bi gàmm gi paasee rek muy tuublul yàlla mu ne yàlla maa ngi lay tuubal ndax gàmm gi paase 70 nag rek laa rendil soppe bi te lu ëpp laa ko waroon a defal maa ngi maa ngi am gàcce maa ngi rus maa ngi tuub ci sa kanam nga baal ma bàkkaar boobu noonu xoolal loolu mu ne rendil yonantu soixante-dix nag bàkkaar la moom ci moom mu ne mu ngi koy tuubal yàlla kooku noonu la meloon ci yonantu bi sallallahu alayhi wa doomam yëpp yonantu bi la leen tuddee dëkkam bi dëkk yonantu bi la ko la ko def moom wax na sax mu ne képp kuy rawanteeg moom ci bëggeelu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wax nga wax bu jomb ba pare bàkkaar nga bi nga ko yéenee rek ne xaaral ma rawanteeg Mawlaana Cheikh Ibrahim ci bëgganteeg moom yonent mu ne bàkkaar nga wa fii dërqi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustahalan muharrama man ci yonent bi ci mbëggeel wala nga koy jéem a xalaat rek walla nga am yéene bi rek mu ne yàlla bindal na la sax ci bàkkaar ndax lan xuliqtu bihi wannaasu fi sinnatil kara te mataxtu minhu dëxëran is kuntu mufrada mu ne bi muy ànd ak yonent bi foofu fekk yàlla bindagul benn mbindeef ca la aju woon ci yonent bi di bànneexu ci yonent bi fekk nit ñëpp ñu ngi nelaw yàlla bindagu leen ba léegi donc kooku noonu la mel ci yonent waaye nag li olof yi di wax borom xam-xam yëpp d'accord ci mooy loo bëgg da koo xam moo tax dafa xam yonent bi wax na mu ne su yonantu delsi waatoon ci jëmmam Muhammad ibn Abdullah ma di ko gis ñuy dund maak moom muy wax may dégg may wax muy tontu ñu nekkandoo mu ne xam gi ma ko xam du yokk bëggeel gu ma ko bëgg tamit du yokk même su delsi waatoon ñu indi ko kooku noonu la daan fugloo gàmm su gàmm jotaan nag lépp lu mu yor ci xaalis poche bi dara dafa ne ku ñëw génn rek ku ñëw laaj rek mu génn joxe mbubbam yi ceeb bi amul dara lu muy teel yonent bi lépp yonent ko moom ndax yonent moo ne anal xaasim wallaahu muxti yàlla mooy joxe mais man maay séddale kon yow li nga am nga xam ko ak nga ñàkk koo xam yonent la ko jox kon kay su taxawee di ko laaj danga ko ko war a delloo ndax nit ñi bàyyi mu ne kenn amut yonent rekk a am sallallahu alayhi wa moom dong moo moom lépp waaw moo tax noonu la ko daan dundale dimension ba mu fa tolloon nag moo kawe mujj na pikiir ko mbooleem doomam yi mbëggeel googu pikiir na ko mbooleem soxnaam yi pikiir ko mbooleem sëtam yi pikiir ko mbooleem taalibeem yi taalibe baay yépp soo doon wut benn caractéristique boo xam ne ñoom ñëpp ko niroole mooy bëgguñ bëgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wax na mu ne moom raw na ci mbëggeel yonentu bi ci mbooleem xutbu yi taalibeem yi tamit raw nañ bëgg yonentu bi ci mbooleem taalibe yi moo tax taalibe Cheikh Ibrahim ñoo gën a bëgg yonentu bi mbooleem mbooloo ma neen moo gis li ma la waxoon léegi nag mooy mbëggeel xam moo koy indi waaw yonentu ku ko xam rek dootoo teg keneen ci kaw waaw dootu mënoo ko sax doo teg keneen ci kaw ñun tamit ci loolu lañ nekk ñun waa Nasrul Fayda ci loolu lañ nekk su su suñuy gàmmo ba gàmmo gi jeex rek te suba ga ñun ci la ñuy tàmbaliwaat pour organiser waat ñun dañoo am benn yéene boo xam ne fii ak loolu amagut suñ xol yi ñu it du sedd moy ñu dem ba nga xamné ne moy nek le premier événement islamique du monde waxuma dal du Sénégal Sénégal moom tabaski moy événement islamique bi fi ëpp ko gis dana khatil domam khatil bopam khatil jabaram jënd xar ñu def férié ci bës bi <coughs> képp ku nekk da nga delluwaat ci sa village mbokk yëpp danañ dajawaat maanaam tabaski daal ni ko jullit yi dundale ci biir Sénégal amul beneen feetu jullit bu ñuy dundalee noonu foofu nit ñi teg tabaski ñun foofu lañu bëgg gàmmu àgg fii loolu amagut ñun suñu suñu liggéey tàmbaleegut sax xol bi la war a njëkk a setal ndax yonent si yàlla muhammad sallallahu sallam wax na mu ne inna fil jasadi mutxatan fa isa salaxat salaxal jasadu kulluhu wa isa fasadat fasadal jasadu kulluhu alaa wiyal mu ne benn lumb mu ngi ci biir jëmm ji su laabee jëmm ji yëpp laab na waaye su tilimee gàkk jëmm ji yëpp tilim na gàkk na mu ne loolu mooy xol taalibe bi bi war a dem gàmm ji wala jullit bi jóg war a dem gàmm ji na setal xolam parce que foofu mooy ndab gi nga xam ne fa lañ koy defal mbëggeelu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu xam ne lii muy defi nii warugar la ci moom ndax ki tax ñu bind ko kooku la dem pour rendre ko hommage kooku la dem pour ziyaare ji ko kooku la dem pour déglu ko kooku la dem pour sentir ko te xol mooy sentir pour nga mën a yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa xol la ñu bari dañoo jàpp ne yonent bi dee nañ bañ suul ko fekk loolu du dëgg yonent mi ngi dund ba léegi yàlla moo ne wax la mu anna fiikum rasulillahi na ngeen xam ne yonent mu ngi foofu ci yéen nekkatu fi nag ñu koy xool di ko gis di ko làmb di ko daj mais mi ngi fi ñu di ko yëg yëg googu nag xol moo koy def donc jullit bi li mu war a njëkk a def suy waajal gàmm mooy mu setal xol bi baal ñëpp àq balu ñëpp tamit àq ba pare waaj wut yéreem yu rafet wut alalam bokk ci ñi nga xam ne ñooy dundal ganu yonant bi fa mu jëm wala boog su fekkee dañ koy fekk na participer ci dundal ganu yonant bi sallallahu la ko dalee ca pittax ba ca gëléem fu mu ci mënti participer rek na ko def fu mu ci mën a participer rek na ko def bàyyi bind na lettre benn taalibeem di ko wax ne ko araam na ci ñun ñuy rendi ganaar pour yonent bi waaye ñi tolloo ganaar ganaar lañ lañ mën a rendi mais ñi nga xam ne yàlla may na leen lu ëpp ganaar ñooñu lu ëpp ganaar lañ war a def yéene ñëpp jàmm di di julli ci yonent bi semaine boobu yëpp bébé bésu gàmm gi taalib jullit warta nelaw guddi gàmmu parce que aminatu mi jur yonantu bi nelawutoon guddi ko mi ngi doon matu yonantu di waa ji juddu yonantu yëpp wàcc ñëw di ko teeru malayka yëpp wàcc di ko teeru jinne yu baax yëpp wàcc di ko teeru rawxaan yi xuddaam yi ñëpp wàcc di teeru yonantu bi sallallahu alayhi wa bi muy juddu kaaba gi dafa jeng te mur la dafa défier les lois de la pesanteur lool mur du yëngatu mais miir bi dafa jeng def nii néegu yàlla defaat def jëngaat nii ne wuli de Muhammad picc yi jóge ndijoor dem kanam naan yonantu judd na picc yi jóge sow di jëm xarfu naan yonantu bi judd na muy taw taw bu métti asamaan kontaan jant bi ak weer bi benn bés boobu rek ci dund doomu aadama yépp ci la ñoom ñaar taxaw ci jaww ji bañ na duñ duñ dak bi dimanche di jot ay boori 5 jant baa ngi gën a leer bañ na du sox ndax lan soppe bay waaj judd weer wi guddi lay ñëw we waaye 5 weer wi feeñ na xaat ci jaww ji ndax lan bëgguñu guddi gu lëndëm ndax leer mooy waaj a judd yonent bi judd donc loolu danga koy dund sooy dem nga xam ne bés boobu moo lay moo lay yóbbu te yonent bi sallallahu alayhi wa kem ni nga mel ci moom rek noonu lay mel ci yow waaw sang la boo xam ne كم نيغا ميل تي موم رك لاي ميل تي ياو واخنا مو ني البر لا يبلى والاسم لا ينسى والديان لا يموت اخفل ما شخت كما تدين تدان مو ني لو باخ دو سانك موك بكار يالا دوكو فاتي ميم سودي ديف نغاكو با باري سا يالا موم فاتي ود بكار واي بالنا لاكو سو بالو مي فاتي وكو كون غا بانكو ديف موغن mu ne kii fay muy yàlla du dee mukk du fi jóge alxayu laa yamut mu ne waaye defal li la neex bàyyi mu ne wax boobu ci wax yu gën a raglu la bokk buur bi moom àddina ak suuf bind ko wàcce la ci kaw suuf di la xaar pour nga ñëwaat mu ne la yaa ngi noonu nag waaye defal lu la neex mu ne wax bu raglu la mu ne waaye mu ca jeexit ba nag yonentu mu ne kamaata diinu tuddaanu li nga leb la rek moom lañ lay fay moo tax loolu la lebal yonentu bi rek loolu la la yàlla jox ñi joxe nag tey déwén danañ amaat ñaari nag ñu joxe benn xar tey déwén danañ amaat jegu ñaari xar ñu joxe ganaar danañ amaat ñaari ganaar ñu joxe picc ku ci nekk daal li nga joxe yàlla dana la ko fulal dellowaatal la ko parce que bëggut yonent bi am bor moom yàlla sallallahu alayhi léegi nag soo àggee ba foofu sëy julli dafa war a bari da nga war di jàpp instant bu nekk laab instant bu nekk jullit ñëpp nga yéene leen jàmm tey muuñ jamono bu ne ndax eh, bàyyi su gàmma teruwaan ba gàmmooy jeex day muuñ rek foo ko fekk waaw day muuñ day muuñ di kontaan rek du mer ko donc yooyu ay habitude la ay ay réflexe la yow xam ne jullit bi war na ko bàyyi xel fexe ba nga bégloo sa yaay ci jamono boobu jamono bu nee war nga bégloo si yaay rawatina gàmm parce que bi la yàlla jëlee ci leeru yonantu ndax loolu lañ ñu wax loolu la ñu yàlla wax ne ci yonantu la ñu bindee kon bi la yàlla jëlee ci yonantu daf laa jaarale ci sa papa jaarale la ci sa yaay nga doog a ñëw nga fexe am seen ngërëm say dëkkandoo tamit nga fexe su doo xuloo woon nga ak ñoom nga jéem a jubóog ñoom waaw yooyu yëpp ay réflexe la yoo xam ne jullit bi daf ko war a def bés bu ne rawatina nag bi bisu yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay faral di wax toujours ñu bari ñu ngi ma ciy critiquer ma ne faydu jeunesse la ci bàyyi jiital parce que bi mu koy taal bàyyi 1929 la taal faydu donc boobu mu ngi am 29 ans donc boobu mi ngi ci digg jeunesse am donc message foor la lancé humanité wan leen ne leen mouvement bii ma indi mission bii ma yàlla jox ma war ko tasaare jeunes yi ñoo ci njëkk ndax soo bëggee xam ëllëg réew mii nan lay mel xoolal jeunesse am ni mu mel tey su fekkee valeur culturelle et morale yi sont en déperdition xamal ne réew mi ëllëgam baaxoot mais su fekkee jeunesse yi ñi ngi nekk jeunesse bi mu ngi nekk ku conservatrice ku protectrice kuy sauvegarder valeurs yi moo xam culturel la wala islamique la wala culturel bu mu ci mënti nekk mu koy sàmm jikko yu rafet yooyu jeunes yi di ko sàmm xamal ni pays boobu ëllëg am na avenir ndax jeunesse consciente la am jeunesse saine la am donc jeunesse bi bàyyi ñoom la waxal wax na mu ne aromu riddal baari li nusrati diinihi wa ubrisu lil jiilil jalili misaala lil jiidi lil jiilil jadid la wax nouvelle génération yi ñëw bàyyi mu ne sama dund gi yépp dama ko def viatique provision yóbbal pour ñoom pour ma nekk seen référence donc moom bàyyi woon na xel torop jeunesse bàyyi na xel ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mais rawatina jeunes yi parce que xam na ne ëllëg ci jeunes yi la ne te xam na ne ëllëg a ngi ñëw noonu lislaam yi xelul jeunes yi la ñuy song pour jéem leen a acculturer jéem leen a déculturer jéem leen a def ay personnes hybrides ñoo xam ne dootuñu am benn culture nekk ñu fii nekk ñu fee fàtte nañ seen passé amatuñ avenir dañuy dund au jour le jour Baay xamoon na loolu moo tax mu teel a jiitu ci xol yi dugal fa mbëggeelu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa lu mënti ñëw tamit mun nga changer seen ni ñuy solo nga gis leen ñu solu solu yu doy waar mais ko ci fekk rek mbëggeelu yonentu baa ngi ci biir xol bi loolu moo nekkoon mission ci jeunesse bi kàddu bu mujj bi kàjj sant yàlla la ak gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen yéen la yonent bi jaral ngeen di déplacé wu di dem ci ñi nga xam ne yaakaar ngeen ni ñoom ñoo leen gën a xam yonent bi ngeen di leen laaj ñu tontu tontu ba ñuy tontu ñu ngi koy jëlee ca alxuraan ak xaddis ngeen tasaare loolu yéen it yéen a ngi liggéeyal lislaam ci seen côté bi nga xam ne foofu ngeen mëne yéen a ngi liggéeyal yonent bi tamit sallallahu alayhi wa yéen yéen a ngi gàmmo tamit ci côté bi nga xam ne yéen yéen a ko mëne ñu ngi ñaan yàlla na yàlla barkeel réew mi yàlla na yàlla dooleel suñu xalifa ak mbooleem xalifa yi nekk ci biir réew mi ak biir Afrique ak biir àddina képp daal koo xam ne sa dund say noyyi say yëngatu say jéego dafay yokk lislaam yàlla na yàlla dooleel la yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def weeru soppe bi gis naa ko muy jege si man bàyyi sama xol bi medina lay aju ji ndax weeru soppe bi gis naa ko muy jege si Medina lay aju ji ndax weeru soppe bi gis sama xol bi Medina lay aju ji ndax bi gis naa ko muy jege si. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتق لما خلق القاتم لما سراب قول هادي لا صراط المستقيم ولا هادي أقل مقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين